xam nga ci euh, tournée yi ñu nekkoon ñun son discours dafa leeroon nañ suñu discours moo doon amaguñu candidat parce que même président Macky Sall doon présenté wu fekkoon dafa doon présenté wu buñ koy jàppale day nekk sous condition euh, discours woon nag mu valable ba tey amaguñu candidat naturellement ñun ñi nga xamante ne bii ay membre fondateur Macky 2012 lañu maanaam les premiers compagnons du président de la république te nek batay en partenariat avec nous. naturellement dañ waxtaan ak ak mom parce que li gën li gën li cohérent c'est ko wax ñu comment nous euh, conserver sunu grande euh, coalition pour continuer conserver le pouvoir ce qui moy cohérence parce que pouvoir bi c'est pas une question de jouissance mais surtout dañu tek PSE

parce que réew ak pétrole bi ak gaz bi ak fi mu toll ci nga xamanteni bi ñi bu suñu jógee toujours li ñu xaar moy yak infrastructure yi nako ko accompagner euh, au moins ci premier mandat bi loolu euh, man ko koy ñaan donc ñun gor dañu waxtan naturellement ak mom suñu juboo ak mom moñu moñu gëmal gënal ah suñu juboowul nak mom dañuy dañuy xala jang jang ku nek jang fàttee rek mais li ñu li ñu bëgg daal mooy waxtaan ak moom wax dëgg yàlla peut seet ñun la mouvance présidentielle naka la ñuy conserver pouvoir bi loolu nag ñi wax ni euh, dafay dafay laaj ay ay ay ay ay profond changement il faut ay changement yoo xamante ni bii surtout ci wàllu personnel parce que il faut que mu xool ay rakkam moom président de la république mu xool ay rakkam parce que 2035 la ñu wax na xool ay rakkam laalaa mu dooleel leen. mu outillé len, mu jox len yefi pour que ñu jakarlo opposition bi mëna a gagné ko aussi wutu wutu rafet samal ko ginnaawam wa loolu nag li ci plus ëpp solo moy mom kimi tan tànn nañ ko waxtane ak ku mëna doon nañ ko waxtane nañ ko waxtane ba euh ko bu mu bàyyi kenn ñi ñi dañ imposer diw loolu fay indi ay problème je pense que na waxtane ak ay ak ay partem waxtaan ak toutes les sous coalitions su boobaa mën ñoo am consensus parce que su boobaa sax ñi dul d'accord mën na baña bari mais waxtaan bi moom nañ ko waxtaanee na jitu nañ ko nañ ko def c'est extrêmement important parce que à partir du moment où le président déclaré nous, du du du du nekk candidat mën nañu am des des des des positions de de défiance et ñoo xamante bi voilà seen xel de dem fenn d'autant plus que ci coalition bi ñu bari xam nañu.

mu ñëw benn bokk yaakaar troisième socle mu def la la grande mouvance présidentielle mais nag mu xool bu baax ñi mu ciy waxtaanal ak ñañoo ci digne de foi parce que je suis sûr et certain que ñu si bëri wax dëgg yàlla moom seen xel mi ngi mi ngi mi ngi ngi feneen te jàpp naa ni duñu duñu li président di wax duñ ko def